te mag ñi buñ la jàngalee dañ lay wàlla li lay xamal ne am sëriñ am na cosaan ci alxuraan événement bi njëkk xew ci yàlla ak jaam yi boobu la ko jàngale bi mu waxee ñëw ne wa aadama jàppal wa allama yàlla mu ne xamal na aadama malaaka yàlla wax ne ñu ne laa ilma lana jàppal laa ilma lana yàlla woon inni aalamu maa laa taalamuuna xoolal ñetti ñetti ñetti ñetti ñetti taxawaay yi aadama yàllaa ko xamal malaaka yi ne ñun de dara lañ ci ci buntab toroxlu yàlla mu ne man xam naa lu ngeen kële àllama kee laayal ma kee inni aalamu ma la taalamuun am na fooytool tool du ko jar malaaka mi xam lañ ko bindee ci leer duñ lekk duñ naan duñ mooy yàlla bu nekk ña la neex yàlla buñ soxlaa sëriñ yow mi lekk di naan te nga weex ëllëg nga ñuul na war a mel su malaaka mën am sëriñ yaa aadamu am bi um bi asmaihim aadam jàngaleel malaaka yi mu jàngal leen ba pare nekk seen sëriñ yàlla na acca fay leen joxe leen àllarba fay leen weer usjudu li aadama fay bi gën a seer ci fay mooy fay sujjóot xam ne koo ko defal ko du yàlla da ngay génn ci diine ji moom lañ fay sëriñ bu njëkk mooy yonteel aadama sëriñ bu njëkk na sëriñ mooy aadama taalibe njëkk na taalibe mooy malaaka yi fay gi njëkk fay mooy usjudu bu ci gën a foor taalibe malaaka sëriñ yëpp yonent fay gi nekk sujjóot lu bëri ci mbokki taalibe loo rek jàngale ne comme malaaka yi war a am sëriñ kon naka yow ki mat baax ñu ngi koy santale yàlla ba soxlul sëriñ am na tawfiix du kenn ko ci wet comme moom mat na baax na amul problème su ko neexee mu ne man comme feebar bu utum hôpital dara yow mu feebar na amul fulla ba dem faju ji na ko bàyyi xel kon ki ko nangu d'accord feebar malade la nangu na faju ki nga xam ne dooru ko moom ñu ne ko alhamdulilah ñu ngi lay ndokkeel ci sa ñàkk feebar gi waaye daal ñun xam nañ ne soxla mënta ñàkk alquran mu ne yaa ayyuha alladina amanu taqullah wa kunu nag maqaamaa koy dëggal sëriñ bu kum yar nga nekk saadix waaye sëriñ bu dëgguwut kum yar ci dégg-dégg ngay ngay